mbokk yi wootekat yi woote ci caaxaan di woote ci bànneexu bakkan di woote ci li leen neex wootekat yooyu moytu leen leen ndax wootekat yi kat mooy ñiy woote jëme ci li yàlla santaane ñiy woote jëme ci li yonent bi santaane waaye képp ku woote jëme ko feneen moo xam ci sa baay wala ci sa maam wala ci leneen loolu kenn du la ca topp ndax amoo ci tegtal ñu nit amuñ ci tegtal ndax li ñuy wan ni amuñ ci tegtal téere yàlla bi amul fenn fu mu ñu waxee topp leen diw topp leen kilifa diw topp leen nangam alquran ba mu jeex yàlla waxu ci kenn tudd ci kenn ne topp leen ko kenn du am benn aaya ci alquran bu wane dañoo war a topp maam diw walla baay diw maam diw ak bàyyi diw ni ñu fi nekkee la ñeneen amee maam amee ko baay waaye yàlla muhammad la ñu wax roy leen ko képp ku roy muhammad am nga tegtal ci alquran di nga ko indi mu leer waaye ku roy ku dul muhammad da nga wër ba sonn tegtal doo ko am moo tax ñooñu dañ leen di tuddee duha duaatu shuruur mooy wootekat yi jëme ci caaxaan min ahli al ahwaai wa zanadiqa ak ñoo xamante ni saay-saay lañ ak ñoo xamante it nag dara nekkut seen mbir lu dul kóotuwaaye ñu mel noonu ngir am teraanga ci ñoom ñooñu ñooy ñiy réeral nit ñi léeg-léeg mun na nekk sax ab jàngkat benn soit disant jàngkat boo xam ni dafay nekk ci lenn ci ñu mel noona di woote ci loola lan moo ko ci yàlla taxut lan moo ko ci téye bi taxut bëgg njub taxut waaye la mu fay am akas néew tur ba ñu koy jox akas néew alal ba ñu koy jox akas néew loolu moo tax yata na bil islaam ñuy tuddewoo islaam fekk gëmuñ ko ñooñu nag mbokk yi ñooy ñi nga xam ne dañoo bëgg sorel jullit ñi seen diine dañu leen a bëgg sorel seen i pas-pas dañu leen a bëgg a tàqale ñu yoonu yonent bi te borom bi nee na bu leen nangu topp benn yoon wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili yàlla ne bu leen topp cël yi cël yi mooy yeneen yoon yi ben yon mo am moom la yàlla reconnaître mooy siraatal mustaqim lu dul siraatal mustaqim rek as siraatul munawid dañ koy wooye lépp lu dul yoonu yonent bi rek yoon bu jeng la jubluwuñ ci dara nag lu dul sikkaloo jullit ñi dugal ci seen bopp loo xamante dañ ciy jublu fay yoonu yàlla fay yoonu yonent bi te ànd ci ak iblis léegi nag mbokk yi ñu mel noonu fu ñu toll dañuy xeex sunna داني خيخ اك اهل السنه ناخ سنه ارازي ولين تي سنه مبوكي موي فطره الله بروم بي نينا فطره الله التي فطر الناس عليها يالا دا فا بيند نييب تي نيوب كو دنگ داني لا دنگال واي نييب يالا تي نيوب لا لين بيند موتاخ يونت بي صلى الله عليه واله وسلم نينا كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه aw yu nassiraani yonent bi nee na ku juddu yàlla ci siraatal mustaqim la la teg nga nekk ku jub bi ngay judd doo bokkaale bi ngay judd doo def bidaa bi ngay judd doo bàkkaar bi ngay judd doo def lu ñaaw waaye yonent bi nee na sa way jur ñoo lay dugal ci bidaa ñoo lay dugal ci caaxaan ñoo la dugal ci toppal diw ñoo lay dugal ci gëmal diw fàtte loola toppal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam tax fa aba yu yuhawidani aw yumajjisanihi aw yunassirani nassiraani yoon boobu yàlla teg nit ñi nag mooy fitrat allahi allati fatara annas alayha njub googu la yàlla teg ci nit ñi kon nag la tabdila li xalqillah kenn mënta changer munoo wax wax ba changé mbindum yàlla munoo coow a coow ba changé mbindum yàlla munoo yéeg asamaan ba ñu topp la munoo bënn suuf ba ñu topp la ndax yàlla diglewul ñu topp la mbokk yi diine mii képp koo xam ni bëgg nga ko dund il faut nga taxaw fi mu la taxawloo nga jaar fi mu la jaarloo mbokk yi na day tënk nit ak boromam du la tënk sa diggante nit ak nit déedéet du la ci tënk comme ni mu xewee nga xamni dañ lay gëmloo bay diw wala mam diw ba nga yaakar ni moy def lépp sunna da la libéré ci loolu nee la loolu gum la won buñu la takkon bu mu njaam la sunna nee na tekki ko li ñu ne wa yarbitul insan bi khaliqihi da lay teunk sa digënté ak sa borom ba ngay juddu yëgu ko ba ngay febar yëgu ko ba ngay sonn yëgu ko li lay dal da koy dal kon kenn du la teunk sa digënté ak mom waye teunk bi moy sa digënté ak sa borom loolu motax tax kat bi ki bëgg àdduna du nangu loolu lan moo tax du ko nangu ndax sunna day dindi seeni intérêt personnel sunna da leen di xañ seeni teraanga te kat teraanga nekkul ci li ci poosu nit ñi teraanga nekkul li la nit ñi jox te jaarul yoon mais teraanga dëgg mooy nga taxaw ci yoonu yàlla soo ci taxawee boo amee boo amul yaa ngi ci teraanga ndax dangay dund sa xel dal doo am benn contre contrainte doo am benn jafe-jafe sunna day ñëw di xeex seeni bit seeni soxla parce que dañoo amoon lu ñu leen di defal te teguñ ko fen dangaa bay jël sa tool wax nit ñi nañ la ko bayal amoo foo ko teg amoo foo ko teg lu dul rek bu ngeen ma bayalee am nangam bu ngeen ma defalee am nangam waaw loola nga dig nit ñi kan moo la ko sant ndax yàlla moo la ni ku la bayal mu dugal ko ajjana ndax yàlla moo la ne ku la yaakaar mu dugal ko ajjana ndax yàlla moo ni ku la topp ma teral ko yàlla waxut loolu léegi da nga tënk nit ñi nax leen ci say intérêt bopp ak say soxlay bopp ñii bu ñu leen leeralee ne lii la yàlla wax loolu du leen mën a neex beneen bi da leen di xañ seen bànneexu bakkan ndax boo fi naree nekk bëgg a réeréelu dañ la fiy teg dem fële ndax xam nañ ni yàllaa ñu bind yàllaa ñu moom yàllaa ñu sant yàlla ñuy tere kon sant bu yàlla mbindam ak moomeelam yow mënoo dox suñu digganteeg moom su dalay daal di metti mbokk yi loolu moo tax ngeen gis yonent yi yàlla yónni yëpp ahlul ahwa di leen xeex amul yonent bu ñëw lu dul nitu caaxaankat yi dañu leen di xeex yonent bu ñëw dañu laa xeex ndax dangaa bëgg a tere li nit ñiy teraanga woo daf ñoo bëgg a xañ suñuy barkay maam daf ñoo bëgg a xam suñu barkay baay dañuy xas suñuy maam dañuy xas suñuy baay fekk déedéet xasuñu sa maam xasuñu sa baay mais njub gi dëgg li mooy wax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon nag yonent yi ak ñi mel ni ñoom ak ñi bëgg a jaar ci seen yoon du ñu deñ ci toujours di leen sànni ay baat di leen xeex di wax ci ñoom lu ñaaw ndax da nga leen a jàppee ay opposant fekk ñoom opposé wuñ la dañoo bëgg nit ñi jubbantiku yow ni nga amee fitu sañ-sañ ba nax nit ñi noonu la keneen amee fitu sañ-sañ ba jubal nit ñi léegi nag kii jubal nit ñi moom danga koy jàppee contre contrecarré ko foog ñi dalay xañ say mbir loolu moo tax sunna mbokk yi ci jamono bu nekk dañ koy xeex diine ci jamono bu nekk dañ koy xeex mais yàlla nee na la bul tiit walakin al aqibata lil muttaqin wallahi gis nga mujj gi ñu jub dong koy moom mbokk yi lan moo tax yéene wuñu nit ñi njub lan moo tax société yu bëri dëng lan moo tax nit ñi gisatuñu sunna lan moo tax gisatuñu woote yàlla lan moo tax almudilluun dafa am ay réeralaatekat yu toog ci yoon yi léegi nag ñoom li ñuy bëgg almudilluun mooy yamshuuna ala uquli al awaam dañoo bëgg dox ci xeli nit ñi nan la ñuy doxee ci sa xel tiital la waaw diw kay moom lu mu bëgg nangam moom kay kii kii nangam kii kemaan la kii yooyu lañ lay waxal di la ko waxal ba yow keemaanu ko yàlla dootoo ko gis rëyu ko yàlla dootoo ko gis ajjana dootoo ko gis safara dootoo ko gis ndax dañoo ngandal nit sa wet jox ko li yàlla moom te li yàlla moom ku ñu ko jox war ngaa xam ne du sa moomeel li yonent bi moom ku ñu ko jox war ngaa xam ne du sa moomeel mais dañuy ngandal bàyyi diw kilifa diw sa kanam ba mu ngande ba dootoo tudd yàlla loolu nag bu ko defee nag yu xawwifuunahum di tiital waaw ku bàyyi lii kay alku ku bàyyi lii torox ku def lii nangam lan moo tax parce que xam nañ ni amuñu bu ñu tënkee nit ñi su ñu la waxee ne boo ko bàyyee torox da ngay ragal kon ñu jël jatang jatang la ngir nga toog lu la yadulluuna manzilata nabi du ñu teg tegtali mukk mukk mukk jëmmu yonente bi ak ngandam déedéet yonente bi daal tuuti lañ la ciy waxal wax la seen i maam ak seeni i baay moo tax borom bi ne ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم ني توب لودو الاسلام ني توب لودو القران لو تود لودو القران رك داني بك يوخو دال بو تود يالا مون سيل موتاخ بو ني ساغا يالا ساغا يون جوخ ليك كين تي نين ني داف بن رياجير بروم بي نينا فالحكم لله العلي الكبير اتبي لو لين نيه داف لين في تي ادنا وياتبي ما باي داف ان شاء الله يالا كين دوكو غير كين دوكو جند كون بوكي nit ñi il faut ñu yeewu dañoo toll ci jamono boo xam ni téere bii di alquran mooy téere borom bi mooy sunu hidaaya moo ñuy jubal yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla may fahmul qur'ani wa sunna fahman sahiha yal nañu yàlla may dégg gu jub xocc leer nañ waaye ñi réer yal na leen yàlla jubal ñi réer yal na leen yàlla defal hidaaya ndax kat suñuy bàyyi suñuy maam suñu lépp ngi ci ñooñu yàlla leen yàlla may hidaaya ba ñu jub ba gis li daloon yéefar yi doon xeex muhammad ba ñu bu demee ba mujj xam ne ndeke mbir mi di noonu dañoo dëppaat kon yàlla na yàlla dëpp ñi xamul te njub tax leen a jub jaabir ibn abdullah radiallahu taala anhuma nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam jenn waay dafa ñëw laaj ko ne ko dama bëgg nga wax ma yaar yi nga xam ne yu am ba noppi la nga xam ne sunu borom noppi na ca amatul jaratul xalaat loola moom pare na ci moo jibataan mu ne ko képp koo xam ne faatu na te bokkaale wut kooko àjjana la jëm looloy benn bi képp koo xam ne faatu na yóbbaale dara ci bokkaale kooko sawara la jëm loolu mooy bi ci des yooyu ñaar sunu borom tabaraka wa taala noppi na ci kon bokkaale gu mag bokki jullit yi mooy jël dara bokkaale gi génne nit ki ci lislaam ñuy wax ne lislaamam toj na te bu ko faatuwaalee mu tabbal ko sawara moo di jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla rekk moo ko yeyoo nit ki jël ko defal ko leneen wala keneen leneen nag suñ ko waxee mën naa doon ay bant yuñ samp mën naa doon i xamb mën naa dooni xiram mën naa nekk xarga fuufa mën naa nekk jinne mën naa nekk malaaka ak tur yuñ leen mën a jox buñ nee keneen mën naa doon doomu aadama ndax doomu aadama it des na ko yëkkati ba àggale ko ci di ko jaamu kon bépp xeetu jaamu yàlla boo xam ne yàlla dong nga ko yeyoo nga jox ko mbindeef su boobaa loolu mooy ashirkul akbar ca misaal ñaan ñaan nga jëmale ko ci lu dul sunu borom tabaraka wa taala moo xam ci xërëm yi nga ko jëmale wala doomu aadama ji nga wax ne yàlla na ma may nangam kooku bokkaale la bokk na ca li ñu tudde rendi rendi boo xam ne nit ki da cee jublu rendi boo xam ne da koy jox leneen loo xam ne xëy na ak wér la ca bëgg wala wërsëg la ca bëgg comme niñ koy defee ci xàmb yi ak xërëm yi moo xam ci xabru la ko def wala da koo defal jinne wala xamb la ko defal bépp xeetu reen rendi boo xam ne ñi ngi koy def di ca yéene lu dul yàlla su boobaa koo ko bokkaale lay doon day dugal nit loolu ay misaal rek la bokk na ci mooy ragal ku dul yàlla ragaluk baatin goo xam ne dangaa yaakaar ne nit ki wala jinne ji wala leneen li su la meree mën na laa lor wala mën na laa feebaral wala mën na laa teg lu mel noonu wala yaakaar joo xam ne yàlla rek lañ ca war a yaakaar nga yaakaar ca meneen bindeef yooyu yépp xeeti bokkaale la sun borom tabaraka wa taala ŋàññi na bokkaale nee na ñii di jaamu ku yàlla ñii di jaamu lu leen du mënta lor mënu leen a jariñ ñii wax ne ñii ñoonuy tiinu fa yàlla ëllëg nee na ñooñu nekkuñu ci dara nee na ñi nga xam ne yéen a ngi leen di woo inna alladina tad'una min dunillah ñi nga xam ne yéen a ngi leen di ñaan bàyyi fa yàlla ibadun amsalukum nee na ñooñu ay jaam lañ kom yéen ay jaam lañ comme yéen fad'uuhum nee na ñaan leen falyastajibu lakum in kuntum saadiqin su fekkee ne li ngeen yaakaar dëgg la ñooñu ngeen di ñaan te duñ yàlla kon nañ nangu seenu ñaan boo xam da nga jis mën a ngoom déet yow mi dem ba ci bant bi nga samp yow mi dem ba ci xiram wa yow mi dem ba ci qabru ba nga tàllal sa loxo di ñaan xoolal ba xam kooka mooy jóg ne la nangu naa li nga doon ñaan wala déet borom bi tabaraka wa taala nee na ñooñu duñ ko nangu borom bi tabaraka wa taala nee na julli gi ak rendi gi ak sëg dund ak sëg dee lépp sax faf lillahi rabbil alamin sunu borom tabaraka wa taala moo ko moom sañoo ci jox benn doom aadama ab cër ngir wattandiku lépp loo xam ne day tax nit ki mën a dem ba tàbbi ci bokkaale tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy dara darai muy lépp loo xam ne su amee xëy na moom ci boppam du bokkaale de waaye mën naa yóbbee nit ki bokkaale yooyu daf ko doon wattandikuloo nit ñi moo tax Ali ibn Abi Taalib benn bés dafa woo ab taalube muy Abul Hayyaaj al Asadi ne ko kaay may yónni la ci lu mel ne la ma ko baax ka yónni woon sallallahu alayhi wa sallam kaay ma yónni la ci lu mel ne la ma yonent ba sallallahu alayhi wa sallam yónni woon nee na ma ne ko loola lu mu doon mu ne ma demal bul bàyyi benn estati bu taxaw lu dul nga dindi ko bul fekk benn xabru boo xam ne dañ koo tabax lu dul nga maasale ko maanaam waxul sax buñ tabax waaye fan boo xam ne dañ koo yëkkati ba mu ëpp lu dul nga wàññi ko ba mu wàcc moo tax dañuy wax ne xabru bi waruñu koo yëkkati lu ëpp ab chibre chibre digganteem ak suuf su kawee rek dañ ko war a wàcc waxuma la nag teg bâtiment ci kaw xabru yooyu yépp yu daganut la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tere mbokki jullit yi taw këyit a ngi woo ne benn recensement moo ci nekk boo xam ne bu doy la benn santar moo ko génne boo xam ne buñ xam la ci ay gëstu yu xóot yoo xam ne da koy def ci fànn yu bari ñi koy wax PEW pew kooku Washington la nekk dafa def benn gëstu boo xam ne ci pas-pasi population yi nekk ci réewi lislaam yi Afrique yi ci la jëm muy gëstu santas ci bépp population bu dee ñaata ci ñoom ñooy ñoo xam ne gëm nañ ne ren di dara yóbbu ko ci ay xiram wala ay rawaan mën naa indi njariñ waaye mën naa dàq lor ñaata ci askani Afrique yi ak ci réew yi ñoom ñoo toll foofu nga xam ne gëm nañu loolu gëm nañ ne def ay xarxa fuufa wala nga am ay rawaan di leen bégloo ci reen di mën naa indi njariñ waaye mën naa dàq lor mu doon ay résultats yu doy waar ndax réew ya ëpp ay jullit nga xam ne ñoom ñoo waroon a ëpp tawxiit faf réew yi ëpp jullit ñoom ñoo ëpp ak aju ci mbir yooyu recensement bi dafa wane ne ka nekk ca bopp ba ci réewi Afrique yi nga xam ne jullit yi dañu faa bari mooy Tanzanie yi ne 60 pour cent ci ñoom gëm nañ ne yooyu mën naa jariñ mën naa dàq lor ñu ñëw ca ñaareel bi muy Mali gii ñu dendal ñu ne 59 pour cent ci ñoom gëm nañ loola que len ñettal moy sunu senegal ki ñu gëm ne 58% ci sénégalais yi nee gëstu bobu nee gëm nañ ne rendi ay yef ak rawaan ak yu mel non mën naa indi njariñ mën lor ñu topé ko non nak afrique du sud 56 cameroun 42 guinée bissau 41 tchad 41 ak botswana 39 Liberia 31 mozambique 27 Ouganda 27 Ghana 26 Djibouti 22 Congo RDC 21 euh, Kenya mooy Kenya 16 Éthiopie ak Nigéria ak Zambie bu ci nekk 11 pour cent nga ñëw rawanda fekk 5 pour cent ñoo fa gëm loolu te ñoom seeni jullit ñi ngi toll ci 10 pour cent kon ñoom ñoo waroon a ñu aju ci ay xiram ak yu nuroog loolu waaye ànd ak ni jullit yi néew na civilisation ba ak nite ga tax na ñu néewlee noonu kon mbokki jullit yi jullit bi su taxawee ci yu mel nii war naa walbatiku laajaat boppam ayna na ndax al iman ana sun gëm yàlla fan la toll fan lan toll ci defar sunuy pas-pas wootekat yi ak imaam yi ak sëriñ si ak tasaarekati lislaam yi nga xam ne histoire Sénégal gardé na seeni tur ba lislaam am ci sun tund wi lu ëpp junni at booba ak léegi lan mooy liggéey bi nga xam ne def lañ ko fi mbokki jullit yi ndax du nun nooy faral di damu lool ci sunuy maam di wax na ñëw dugal lislaam ñoo ko tasaare ñoo ko taxawal mbokki jullit yi aajowoo nañ bu baax a baax xoolaat suñ bopp xoolaat li nu nekk mënee suta nangu suñ réew mi ak place bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ci biir monde islamique bi ak sax ci civilisation yeneen yi place bi mu fi am ñu ñëw ba ci seekalub ñaar fukkeel ak benn di fukkeel ak juróom ci seekalu jullit yi ñu ñëw fii ñu naanu cinquante huit pour cent ci Sénégal yi dañoo aju ci ay xiram yu kenn xamul yu mu doon su fekkee delsi na nag xoolaat li nuy dund dëgg dëgg dëgg te waxante dëgg am na ñaari kuréel ci doomu aadama yi nekk fii suñu réew mi tey ñoo gàllankoor nit ñi ba dox seen diggante ak tawxid ba ci jiitu moo di jibar yeeg ñi leen nuru gisaa kat ya xar nga fuufu yaag ñuy def noonu ak seen publicité ak seen coow ak seen sol colum diine ba nit ñi mënatuñ leen a xàmmee ak jullit yu baax yi mënatuñ leen a xàmmee ak sëriñ si kooku gàllankoor la boo xam ne tax nañu bari gëm ñooñu nangul leen suñ leen waxee ñu topp leen ñu réeral leen ñaareelu kuréel bi mooy nit ñoo xam ne diine lañuy askanoo seen intérêt personnel nekk ca biir lañ fas ñooñe lu gën a bari dañuy tuddoo ay kilifa yu baax yuy jàll waaye ñooñu seen intérêt personnel tax na ñu jàpp ne woote tawxiid bu tegu ci alquran ak sunna su taxawee seen intérêt bopp yooyu yépp day màbb day yàqu loola moo tax ñu taxaw ci tuuru wax ne dañuy défendre mag ña tax képp kuy woote jëme ci alxuraan wala sunna la ñuy jëkk a wax mooy kii ku contre mag ñi la ngir yàq deram ci kanam nit ñi fekk moom ma ngay tuumaal sax mag ña ndax kii woote ne alxuraan ak sunna ay alxuraan baa ngi xaddisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam a ngi nii nga ne kii kon dafa wuuteeg mag ña kon yow yaa ngi wax ne mag ña nekkuñu woon ci alxuraan ak sunna kon kooka noonu mag ñi la te yëgu ko su fekkoon ne du intérêt personnel moo tax nit di taxaw di wax loolu kon su gisee kuy woote ci alxuraan ak sunna day bég ca loola day day wax ne sama maam ak samay baay ak samay sëriñ day lu mel nii lañ doon jéem kon suñ demee ba jëmmi jamono am ñu jóg di góorgóorlu ci loolu kon ci sunub tool la ñuy liggéeyee kon ahlan wa sahlan jàppalanteeg ñooñu dimbalanteeg ñoom mooy tax waaye nag bu dee intérêt bi da ngaa jàpp ne njariñ yi dikk day war a dikk li feeg nit ñaa ngi ci réer day war a dikk li feeg nit ñaa ngi bokkaale day war a dikk li feeg nit ñaa ngi sori alquran ak sunna sori tawxiid nga jàpp ne foofu la intérêt bi jóge kon wax dëgg yàlla kuy woote tawxiid wala ngay woote alquran ak sunna ab noonu rek nga koy mën a jàppe waaye ñoo ñëpp war nañoo xam ne adduna ak li ci biiram jarul lu toll ne tarfatul ayn nit ki di ko dund ci keppaar keppaarug réer wala ci keppaarug bokkaale wala keppaarug jël dara ci yi nga xam ne yàlla moo ko yeyoo di ko jox kenn koo xam ne yàllaa ko bind loolu moo tax sun borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali bis buy ñëw boo xam ne bu agsee yooyu yépp dana réer yooyu yépp dana réer nee na bés a ngi ñëw boo xam ne it tabarra alladina tubiu min alladina tabaau nee na bés ngi ñëw boo xam ne ñañu doon topp ñe leen doon topp ñooy waa màng jëm si ci ñoom ñu ne leen déet bu leen nu topp jotewuñu ak ñoom da jotewuñu ak yéen dara set ci ñoom wecc wa raaw aladaaba wa taqattaat bihim al asbaab mais parce que ñoom ñëpp ànd nañ gisandoo mbugal mi muy ñëw te ànd nañ gis ne kon sabab yi doxoon seen diggante muy boomi kullare yaag boomi cofeel yaag yépp dagg na nag ca jotaay booba nee na waqaala alladina tabaxu ñi nga xam ne waqaala alladina tabaxu waaw ñi nga xam ne ñoo toppoon ñoo doon toppe yi ñu ne law anna lana karratan fa natabarraa minhum kama tabarra'u minna aka neexoon nu delluwaat àdduna kon nii ñu nu def tey nu màng jëm si ci ñoom ñi neenu jotiwuno ak yeen dara sun delluwaatoon àdduna nun dañu set ci ñoom wecc kon bokk julit ah waxtu des na fi de yaa ngi dund xoolaatal sa bopp képp koo xam ne turu diine la yor di la woo ci alquran ak sunna ak njub topp ko ndax yaa ngi alquran ak sunna ak njub ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku la ci turu diine di la ci loo xam ne la waaye du lislaam de wala mu lay yebal ci loo xam ne ay xar nga fuufa la ak yu yàqi pas-pas nee ko fa ñukk ak lam am dem ca sa boroom dem ca alxuraan dem ca sunna te jàpp ci loolu ba keroog ngay dajeeg sa boroom soo ko defee mucc nga boroom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ëllëg te toppoon ay nit ñoo xam ne ñoo leen réeral dañoo topp ay nit ba ñu réeral leen walla ay jinne kon ñaar yépp dal nañu ñëw nit ñi muy bu fekkee ki lay réeral ci tur diine jinne yi bu fekkee ki lay réeral ci tur ay ay xambak yu ko nuru neena lu ñuy wax bu boobaa dañuy wax rabbana arina alladhayni adallana sunu borom ñi doon toppee ñooy wax de danoo bëgg nga wonnu rek fii nu taxaw nga wonnu ñi na ñi nu réeraloon min al jinni wal ins ñi nga xam ay nit lañ réeral nu ak ñi nekkoon ay jinn réeral nu dañu bëgg nga wonnu leen soo nu leen wone naj'alhuma tahta aqdamina kon nun ñi leen doon yëkkati ci kaw ak di leen réeyal dañ leen di tëral ci suuf fab suñu tànk teg ko ci seen kaw lex ya teg ko ci seen kaw tahta aqdamina li yakuna min al asfalin pour ñu bokk ci ñi gën a suufe ci way suufe yi noo leen yëkkati woon bañ bokk ci way kawe dañ leen a bëgg a wàcce tey buñ bokk ci way suufe yi kon sunu borom danoo bëgg rek nga won ñu noonu tey nu gis leen loolu ay mébét la ak i wax aku réccu waaye béréb ba yu mel noonu nekku fa ku ñu indi naan ko mi ngi nii def ko ci suufi say tànk ak yu mel noonu ni ko waxe rek ca aaya ba jàll moo di kadalika yurihim allahu amalahum xasaratin alayhim wa ma hum bi xaarijina min a naar loolu mooy seenu àtt yàlla na sunu borom tabaraka wa taala musal ci loolu yàlla na sunu borom tabaraka wa taala may jàpp ci tawxid ak siraatul mustaqim ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu jàpp ci loolu te yàlla rekk tax lépp doon lu sell lu tegu ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne mooy jàngalekatub jàngalekat yi nekk ca loolu ba keru nuy wuy ji sunu borom tabaraka wa taala الجيشاني ناس سمعت أبا ذر يقول أباسر نيا دما أندو نبينا تبي عليه الصلاة والسلام بند بس يجوم كلهم نينا بنت ما بتشرب فسمعته يقول مدركم يوهم يرنتبي خير الدجال أخوف على أمتي من الدجال والله لدول الدجال لا غير رجل جسم خير الدجال لدول الدجال laa gën a ragal ci sama xeet ak dajjaal nee na fa la maa xasiit an yuduxal ba ñu demee ànd ba ma ragal ne maa ngi bëgg a dugg kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom qultu ya rasulallah ayu shay'in axwafu ala ummatik waaw yow yonent ana lan nga gën a ragal ci sa xeet min ad dajjaal qaala aimmatil mudillin mu ne ay njiit yu réeralaate xoolal njiit koo xam ne dafa tudde boppam njiitu lislaam ne man mun ma julli man mun ma jàpp wala man mun ma aj màkk wala man alquran xaw ma ci dara lu dul loolu numéro neuf wala koo xam ne da ngay jël texte l'islam yi di ko changé sanoo ko ni mu la neexee aaya yi nga koy firi ni mu la neexee hadis yi ngay wéral yi nga bëgg di daifal yu la neex tey loolu lañ toll ci Sénégal ay njiit yu réer la réew mi tey bu ñu leen wanoon yàlla nit ñi ni ñu bëggee yàlla nit ñi ni ñu gëmee l'islam su ñu leen wanoon yàlla danañ gis réew moo xam ne cent pour cent musulman waaye réew mi ay nit lañu wan wanewuñu yàlla dañoo yàq pas-pas yi loola tax yonent bi toog septième siècle naan li ma ragal ci yéen du dajjaal li ma gën a ragal ci yéen mooy ngeen am ay njiit yu leen di réeral tey loolu am dégg mu ñu woote jëme ci yàlla doo dégg ñu woote jëme ci yonent bi doo dégg ñu woote jëme ci alquran doo woote jëme ci tawhid doo woote jëme ci sirk bàyyi sirk déedéet ci lu ñuy woote moo ñuy gën a dem rek li ñuy def ba tool yi ba kër yi ba ba ba waaye yàllaa bugg yeneen tam fay nañ ko ci réew mi xoolal ki wax jullit ki wax ab jullit màkka jarta dem ki wax ab jullit julli li amul importance julli julli du dara imagineel nga jël ay jullit amoo lenn loo leen di wax ci say pas-pas lu dul diw day bu doon du moom yàlla kenn du ko xam suñuy xamee yàlla na ko sant diw te yooyu ngeen di léegi ci Sénégal lii may wax ni yéen yëpp mu ngi ci seen WhatsApp yi yéen a ngi koy seetaan ci Facebook bi yéen a ngi koy dégg fu nekk ci ay doomu aadama yoo xam ne la ñuy wax loolu yàlla waxoon na démb wala qad qaalu kalimatal kufr wax nañ baatu kéeféer mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom réussiroon na keroog ba muy woote sahaaba yi ba ñu ñëwee di wuyu si kenn ku nekk li mu teg sa loxo pour sa pas-pas dëgër mooy def laa xam loo laa ilaha illa allah baat boobu la yonent bi saa salaam doon wax ku ko nangoo wax mu jaayam ne yow nga daal di ci yoon wi tey lan la ñuy xamal doomu aadama yi lan la leen di jàngal ah démb yónnee nañ ma vidéo boo xam ne waa ji ne daal ñun suñu yonent dafa ñuul am na ay mbokk ci jumaa ji ñoo xam ne envoyé naa leen ñun suñu yonent ku ñuul la ñun suñu yonent <laughs> jaay da mu naa di benn tur benn tuub Sénégal yi Sénégal yàlla dafa yónni ab yonent d'accord nañ waaw ah, dëgg la yàlla waa jooju Muhammad maa ko yónni dafay indi aaya wala indiwul aaya ah yaasiin wal quraanil hakiim la minal mursaliin Muhammad rasulullah loolu aaya buy wane Muhammad taaha maa anzalna alayka alqur'ana litasqa loolu aay boo ne yàlla yónni Muhammad wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim loolu wane ne aay bu yàlla yónni Seydina Muhammad yaa ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullah loolu wane ne aay bu wane ne yàlla yónni Muhammad waaw léegi yonent bu ñu boobu Sénégal ana aay bi ana aaya alquran ngay wane ne kii maa ko yónni ana aaya bi aay boobu ci ban saar la nekk ban malaaka moo ko wàcce duñ wax jibril de waaye au contraire Sénégal sax ñoom dañoo yem jibril jibril ak aadama foo tourné Sénégal da ngay dégg ñu nekk ñëw jibril sax dañ koy décidé te jibril la ngi nii lii mooy réew koo xam ne mu ngi Sénégal ku nekk di woote di woote ah di woote di jàngale njàngale yoo xamante ne boo demee ci alquran xam ne kii muy wax lépp ak kéeféer njàngale boo xam ne boo demee ci sunna xam ne kii lépp lu muy wax ak kéeféer la dara du ci diine tey loolu mooy suñu problème jàpp xeet bi gëmloo leen ay caaxaan ñuy sonn di financer seeni alal di yàq bàyyi alquran ak sunna da ngay gis koo xam ne la joroon mu sonn taxul leneen moo tax muy sonn loo xam ne amul benn njëriñ moo tax Omar ibnul Xattaab dafa gis benn labbe ci benn église labbe bi yuuxu di jooy Omar xool ko daal di jooy saaba yi daal di jombi Omar نقول أم يفر نجاي جاي وما نقول جاي لا من أبين آية القرآن لا سما خلدم توادي لويد نقول آية من الله من عاملة الناسبة يلا ننكيد فصرنا وايد فيهم يوم القيامة أكبر السنغال عاملة الناسبة تخمن آية ولجارتك تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام illa min dari la yusminu wala yugni min juu aminatun naasiba sonn te doo fayal xoolal réew mi ni ñu sonnee koo gis mu ngi kër kër yi moo ngi daw waaye doo ko gis mu yeewu fajar daw dem jàkk abadan mukk ci ko fajar muy yeewu daw dem jàkk ci yeneen lay sonn nga gis ko muy jàng alxuraan nga gis ko mu wóor lëndéeg sudi nga gis ko muy war ayaamul biir nga gis ko muy naafila nga gis ko muy tudd yàlla abadan ay caaxaan ikhwatal iman ñu topp ñi ñoyu nga xamne dañuy baara yoonu yalla fa yu dillu bi hal hawa al bid'a topp ay bànneexi bakkan wala bid'a di sos rek di dem bes bu nekk nga gis lu bes lu ñu sos bes bu nekk nga gis lu bes lu ñu sos senegal yoon ya ngi bu rek ubbi len gaña ngi wax ak neexon ya, ñu topp alquran gisee sunna ba ñu ubbi leneen lépp loo ubbi am nga loo bàyyi lii nga ubbi kan moo la ko jox foo ko jëlee di woote ci ay bidaa guddi ak bëccëg bés bu nekk Sénégal ñu sos bidaa bu bees bés bu nekk bés bu nekk mu nekk yu bees juddu ba kay ixwatal iman taqlidan roy roy amul benn benn njëriñ wa yatasaamax bi mutaabaati l hawa da ngay gis même dañuy nangu dañuy nangu ay caaxaan yenn saa yi sax ñu koy wax wala ñu koy def suñu kanam wala sax sa biir kër nga nangu ay caaxaan yoo xam ne xam nga ne lii maa anzalallahu biha min sultaan daay da koy nangu donc ñu nga rek a am ak ñoom jàmm dañoo war ci jàmm dañoo war a def jàmm moo tax ñun ñëpp sax tey jii bu ñu gisee ay ñu xam ne loo xam ne du dëkk ñu dañuy noppi kenn wax mbokk jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lu mu ragaloon ci ñun mooy aimmatil mudillin ay njiit yuy réeralaati aimma njiit yoo xam ne dañuy sànq dañoo sànq waaye dañoo sànq nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na aimma naam walakinnahum aimma fi dalal wa xayaat binnaas an tariqi alhaq wa diin wal hidaaya borom bi nee na ca suratul qasas aya 41 mu ne wa jaalnaahum aimma lakin yadduuna ila naar wa jaalnaahum aimma def naa leen ay njiit waaye lu ñuy woote mu ne yadduuna ila naar aya baa ngi ca suratul qasas aya 41 dëgg la ay njiit lañu waaye ci caaxaan la ñuy woote fecc guddi fecc bëccëg yàmbaa gudul jeex sàngara naan leen balaa muy egg seen put ñu soppi ko meew yàmbaa ji moo gën a neex cuuraay màkk dox leen fakañ ay imamu di ay njiit yoo xam ne baare dëkku yàlla baare sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla ne wa jaalnaahum aimma waaye yasuquna ila naar ay njiit lañ waaye safara la ñuy woote quarante et un suratul qasas xool leen وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن فتنة الدجال هي أكبر فتنة تمر على البشر منذ خلق آدم سليمان عليه الصلاة والسلام بقي لير المصيبة بكنري بيفك دوم آدم بجكو سوف بيان بندي آدم أكتاي يونت بنينا المصيبة بكنري موين دجال دجال مو gën كي مصيبة بيفك أي دوم fekk ay doomu aadama ci kaw suuf ila qiyaami saa musiba bu gën a rëy du fekk doom aadama yi ci kaw suuf waaye fa man lazi yaj'alu fitnatu haa'ulaa'i al-mudilliin a'zamu min fitnati dajjaal xoolal yonent bi ne fitna bi gën a rëy ci àddina buy fekk doomu aadama ci kaw ba yàlla bindee aadama ak léegi mooy dajjaal waaye bi gën a garaaw dajjaal mooy ay njiit yuy réeralaat allahu akbar ndeke kon ñun li ñuy ragal dajjaal li gën a garaaw dajjaal yonent bi ragal mooy ay njiit yi réeralaate tey loolu nu yàlla nattoo kër boo dem am na njiit dëkk boo dem am na njiit mbedd moo jaar ñu dëkk fa koñ boo dugg ndàngam ndàngam waaye dañuy réeralaate li yonent bi waxoon ihdina siraatal mustaqim ba mu koy firi mu ne lii mooy yoonu yàlla bu jub bi mu jël benn bant rëdd ay rëdd mu ne lii ay ñàll la ñàll wu ci nekk seytaane ngi toog di woote yoon wu ci nekk am na ku toog di woote ku leen topp rek yeneen bi nee na safara moo tax alquran ne wa jaalnaahum aimma waaye yaduuna ila naar def naa leen ay waaye safara la ñuy woote bokk jullit yi qaala al ulama xam-xam bi ba ñuy firi hadis bi yonent bi gën a ragal dajjal mu ne wajhu zalika anna dajjal fihi min alamat maa yaj'aluhu ma'rufan inda kulli muslim dajjaal li tax yonent bi li mu koy ragal ragal dajjaal boroom xam-xam am na ay xàmmekaay yoo xam ne day def ab jullit su ko gisee dina xam ne kii dajjaal la dafa am ay xàmmekaay am ay mandarga foofu wa aawar dafa pat ñu bind ci jëmi ñetti araf kaaf fa ra soo ko boolee muy kafara kooku leer na loolu tax li dajjaal di garaaw garaaw borom xam-xam yi nee bind maktuubun bayna aynay kafir ab ini. ngi nii nee na yaqra'uha man yaktub wa man laa yaktub ñépp mën koo xam kii kat xàmmekaay baa ngi nii bët bi dafa pat jëbaa ngi nii dañ cee bind ab yéeféer loolu tax nit ñi mën mucc ci dajjaal waaye njiit buy réer laa te ci mucc mucc ci suñu génne ñu xam ne dajjal la ku ko topp da nga yem safara waaye ñii nii reeralaate nan la ñu muccee ci ñoom ndax aaya alquran la ñuy jël wëlbati ko jël sunna yonent bi alayhi salaatu salaam wëlbati ko nga woote ñu woote màkka ñu ne la jarta dem ndax fii moo gën a foor waaw yàlla alquran ci kaw la dégg alquran ci kaw la kaw la wala ko ah yàlla nangam wala aaya bi diw diw moo ko moom ba muy wàcc ci diw ban moo wàcc Sénégal ban moo wàcc diw ci diw tee ñoo wax jaamu yi dëkk tee ñoo wax jaamu yi li yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax yàlla nee wa maa arsalna min rasulin musumaa yónni benn yonent illa nuuhi ilayhi annahu laa ilaha illa ana fa'buduni amul yonent bu yàlla musu yónni lu dul yàlla nee woo naa boobu de dégg li ma ko yor ma ne ko maay yàlla jaamu ma yonent yàlla Moussa bi ko yàlla woowee tuuru Siina muy ñëw sol ay daale mbaam yàlla ne ko faxla na alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa yaa ngi simil say daal yaa ngi ci montagne bu sell montagne bu li ko yàlla jëkkoon da ko ne inni ana Allah maay yàlla faabudni wa aqimi salaata li zikri man maay yàlla inni ana Allah amul benn buur bu dul man nag ma jaamu waxu ko leneen ndax duñu wax loolu jaamu yàlla yi dem leen ngeen jaamu ci yàlla dem leen ngeen kennal yàlla ngeen bañ a dennale yàlla ak kenn ngeen bañ a dennale yàlla ak lenn loolu tey mooy suñu jafe-jafe